wani wajen halitta dinar nan ta bai a kafin kiwon tsaitar a arzu kakkade da biyu wani da zama mai kuma yi kuma ne yana da kwani da sara ko sara buka mai yin jama ka yi duk wani ñoom ñoo la gënoon a xam ni yàlla moo ko yóbbu loolu amul sax weral gis nga bu xaaxee rek njabarkat yi abu jahlin abu sufyan abu lahab ubayatan ubayatan ni xalaf ila axiriha ñoom ñëpp xam nañ ne yonent bi yàlla moo ko yónni subhanahu wa taala loolu amul sax weral waaye nag gis nga léeg-léeg caay-caay bu la jàppee dafa mel ni seytaane da lay yeew buumi mbaali da lay jatal di nga xam ne lii mooy dëgg waaye topp ko da lay jafe wallahi loolu am na ci nit ñi gis nga bu dëgg waa mun ci yow santal yàlla nga xam ne da ngaa mucc am na ñoo xam ni léeg-léeg da ngay dégg am mag am mag mu fekk gone yi ñuy góorgóorlu ci diine mu ne waaw leen góor góorgóorlu leen li ngeen nekk mooy dëgg ñaari dëgg mënta am li ngeen nekk mooy dëgg su ko gëmee kay wax dëgg yàlla kon xaalam nekk baaxut xam nga ñaari dëgg moom moom mënta am moom loolu moom ñëpp nit ñëpp moom muttafaqun alayhi bayna naas koo xam ne mën naa giñ ci yàlla ne li ngeen nekk mooy dëgg te moom nekku ca kon moo lay wan ni moom xam na ne li nga nekk mooy dëgg waaw lim nekk lan la lim nekk mooy inna wajadna abaana gis nga nit day nekk ci mbir li arabina man shabba ala shay'in shaba alayhi ku paase sag ndaw ci mbir bu la yàlla dimbalewul nga nar caa béj jaaw di nga gis koo xam ne day dem ba xam ne lii mooy dëgg gis nga Abu Talib keroog ka yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax naa ko qul laa ilaha illa allah muy baax boo xam ne dama la koy layalee fa yàlla Abu Talib ci boppam moo way ay way sadd ay bay ni xam naa ni kaw suuf diine ju fi doomu aadama di diine woo diine Muhammad jiyee ko gën ba mu ca noppee ca mu jëndale bay de xam nga lu mu wax su dul woon ak ragal ak yeddaange ma bañ ñu naan moom kat beccangal na ay baayam topp gone bu ndaw gii kon dinaa ko topp kon moo lay wax ne xam nañ li nekk bu dëgg kooku benn la beneen bi mooy gis nga nit di nga koy wax mu ñàkk laa bett fekk dafa am intérêt personnel bu mu làq intérêt boobu lay sàmm moo tax ñu wut ah xam nga nit ki am ay taalibe yoo xam ni moom foo toll ñu ngi lay indil ay addiya ah boo bëggee kaat kaat ñu jëndal la ko boo amee tool ñu bayal la ko lu waaye nar a jox bàyyam jox la ko ah loolu wax dëgg yàlla neexu la bàyyi de léeg-léeg nit dana xam ne sunna mooy dëgg ndax wér nañu lu dul sunna bon na waaye nag ñëw topp sunna daf lay fànqal yeneen ndax mbooleem intérêt yi doon dajaloo kat dootul ñëwati àllarba yi àllarba yi doon ñëw dootul ñëwati su ko defee nit ki xam na ne lii mooy dëgg waaye du ko topp ndax suñu borom ni weddi nañ waaye wastayqanatha anfusuhum zulman ak tooñaange wa uluwan ak réy réylu moo tax suñu borom ni fandur xoola kayfa kaana naka la nekkee woon aaqibatul mufsidin mujjantalu tooñkat yi naka la seen mujjantal nekkoon anna dammarnaahum wa qawmahum ajmain yàlla faagaagal leen ñu ñëpp alag leen defe naa xam ngeen xissa firawna ak Muusa ba ko yàlla alag ca géej ga ak fam jaar humul mufsidun moo tax mu ne fandur kayfa kaana aaqibatul mufsidin suñu borom ne xoolal fan la yàlla mujjeeg tooñkat yi moo tax képp koo xam ni dafay jàng alquran muy gis aaya yu mel nii daf koy delloosi gis nga delloosi gi mooy inna fi dalika la ibratan liman yaxsha saa yu mujj ci saari suuf yi nga xam ne fa la yàlla mujjee tudd qissab Muusa ba mu waye waye wane alagu firaw na fa dani fa axadahu llahu nakaala al axirati wal uula yàlla alak ko alkaanek adina alkaanek alaxira ba pare teg ci nag inna fi dalika li ngeen dégg nag la ibratan liman yaxsha ak waaru la ñeel koo xam ne ragal na yàlla subhanahu wa taala sunu borom ni kon fandur xoolal kayfa kaana naka la mujjee woon nekk aqibatul mufsidina tooñkat yi seen mujjantal sunu borom wàcc loola mu ni wala qad aatayna ñun yàlla ñoo joxoon daawuda jaamab yàlla bi ñuy tuddee yonent yàlla daawud wa suleymaana ak yonent yàlla bi ñuy wax suleymaan ilman kenn ku ci nekk xam-xam yonent yàlla daawud ak yonent yàlla suleymaan kenn ku ci nekk ab yonent la ñuy baay ak doom kuy baay ji daawud mooy baay ji suleymaan ay doom ji ñoom ñaar bokk nañ ci yonent yi gën a màgg ci yonent yi donte nag ci rukba bi féete suuf ulul azmi ndax ulul azmi ñooy ñi gën a màgg ci yonent yi yonent bi gën a màgg ci seen biir yonent yàlla daawud alayhi salaam daa junjus lëpp ci mooy kan donte ay mbiram nag la koy faram fàcce ma nga ñuy xaar te suuratu saat ak saba wala boog saat ci gën jaa yaatu donte junjoon naa si lépp te suuratul anbiya daawud ab yonent la woon waaye buur la woon comme ni Souleymane nekkee woon yonent nekk buur gis nga lay woon ni àddina bi yàgg na fi ah gis nga yonent yàlla daawud bi mu faatoo teg nañ ci junni at ak at yu bari yonent yàlla Isaa dooga ñëw diggante Isa ak Muhammad la fa ne ci at waxuma sax ay nuux ak aadama de moo tax mbokk yi wallaay adduna bi yàlla moo ko moom de yàlla moo ko moom yàgg na fi lool moo tax ki fi yàgg yàggut sax yàggut sarmat moom mooy yàlla subhanahu wa taala daawud alayhi salaam comme ni ngeen ko gisee gis sunu borom ni mu koy nettali wa qatala daawudu jaalut yàlla jox ko nguur wa ataahu allahu mulka wal xikma gis ngeen ko ci suuratul baqara suñu borom jox daawud mu nekk ngu mu nekk yonent nekk buur gis ngeen daawud yonent bu yàlla defaral ay may la bokk na ci may yooya li suñu borom def surtu saba wa alanna lahu alhadid gis nga weñ feer feer bi ñuy defaree lii weñ yi ak yi ñuy tabaxee feer beeg lépp yàlla daf ko yombaloon ci loxol daawuda ba daawud da doon jël weñ di ci defar lam ci bëgg a defar te du soxla ay maak du soxla taal bu mu ko tàngale te xam ngeen loolu moom mustahil la lu warul mën a nekk la moo tax imam Saxaani dafa gis imam Abu Daawud ni ko yàlla mayee xam-xamu xadis mu ni uliina li abi Daawud alxadisa kama uliina li Daawud alxadida mu ni man daal imam Abu Daawud mii yéem na ma moom de yàlla da koo may mu jekku xam-xamu xadis comme ni yonent yàlla daawuda jekkoo woon weñ ci kat kiimaan gi mooy sulay daawud dana defar ay mbubbi koŋ ay mbubbi koŋ ah mbubb yoo xam ni gis nga ni nga amee baatu mbubb gis ngeen sama baat bi ni mel loolu mooy wa qaddir fi sardi mooy da koy natt ba mu yem ba boo solee mbubb mi da ngay mel ni tailleur boo xam ne daa jëlal mètre ndax xam ne kii mesure am lii la fii 30 mètres la fii nangam te loolu lépp mi ngi koy defaree ci weñ jaamukatu yàlla bu mag la woon yonent yàlla bi nee na julli gi gënal yàlla ci naafile yi mooy julli daawud koor gi gënal yàlla ci koor yi mooy koor ak daawud koor ak daawud loo xam ne dañuy wax ne mooy woor tay dog suba woor tay dog suba moo tax amrin al aas ba mu ne yonent bi mën naa la gën loolu yonent bi dañ ko koor gàttagu gën loolu amut waaye Souleymane daawud daawud nangoo ñaan kaana yakulu bi amali yadi yéen yàlla wen li gën a tedd ci lu nit di lekk mooy lu mu ñaqal boppam ba mel ni daawud ndax ci loxol boppam la doon lekk la doon dundee ak a am solo ndax day tax nit am jom day tax nit am jom am fulla beneen bi ci des mooy gis ngeen daawud alayhi salaam ku fiiroon la ku fiir la borom xam-xam yi siire dañuy wax dafa fiiroon ba fiiraa ngeen jéggi dayo te noonu la góor war a mel nag dañuy wax fiir waaye fiir góor ak jigéen yëpp ci bokk yëpp daawud benn bis comme qissa moom dana ñëw ci suuf saba ndax la gën a yaatoo wala soit benn bis daa génn këram tëj bunt yi tëj bunt yëpp bi mu génnee soxnaam daal di génn ci digg ëtt kër gi seen benn waay bu taxaw te tëj nañ bunt yi mu ne ko yow fan nga jaar dugg ci biir kër gi wallahi bu la fi daawuda fekkee dina def loo xam ne daal di wax ay wax daawuda daal di dem doxi soxnaam ba yegg si di karak ubbi bunt bi rek fekkum bonkal mu taxaw ci digg ëtt daawuda daal di koy gëdd artale ko ne ko yow loo def foo jaar doo dugg sama kër nara dal ci kawam yow yaay kan bi mu ne ko yow yaay kan mu ne ko man maay ponkal mi nga xam ni bunt bu tëjee du ma tëree dugg riido du ma tëree dugg te awma kenn ku may faale ko dut yàlla mu ne ko kon yaay malaakam dee kaay reew ma dee weñ bis boobu la daawuda faat wax na dëgg laa yahaabu lmuluk wala yaxaafu ahadan illa allah moom boo tëjee bunt yi ba mu jekk ndeysaan duggal ca suuteeree ba ca suufa suufa suuf taal say ventilo nag muy ëpp moom bu ñëwee du fëgg du yëglu du sone moom bañ nag ba garde corps yi solitaire yi sax duñ ko gis faaf nag moom moom daal kenn moo koy gis mooy kim amal affaire kese da nga naan mi ngi nii ma nga nii mi ngi nangam nangam fekk yow moom nit ñi gisuñ li ngay wax dañuy yaakaar da ngaa dof fekk dofoo ahan kay li nga naan ma ngi nii moom la waaye yow la amal affaire moo tax nga di ko gis daawud alayhi salaam ak lenn ci nettaleem dana firintiku ci suratu Saad insha allah rawatina nag liñ ci gën a yitteel mooy yi nga xam ne ay tuuma la ñuy teg ci kawam ah ca lam defoon ba tax mu tuub ak xuraafaat yi ñu ciy wax comme ni ma leen ko waxee démb alquran ci boppam day lu mat di teey la ak a def ndànk ndax téere tafaasir yi xaw tuuti kon nga ni yëpp sax na fi yëpp yu tane nag da cee am te bokk na ci yi ci gën a tane tafsir imam ibni jarir tabari ba ca topp bokk na ci ibni kathir ak yeneen yi nga xamante ni xam nañ ko ba ci yi gën a mujj tafsir cheikh nasir as-saadi waaye tafaasir yi ci des الدرر الدر المنثور تفسير الامام القرطبي تفسير الامام الشوكاني دك لا اي ورد خم خم يوم مثلا كان ويرنتو ويرنت كثير امو خم خم صح اك دويد لا واي نك خم ني تفاسير يك سير يك يب حتى سنن يك مساني دي صح لا wax dafa fees ak ay ndëxëñ yoo xam ni yii ma nga bàyyi ko ca israiliyaat ya yi nekk ay mawduwaat yi nekk ay daif mu nekk ci biir yooyee nag dafa laaj segg moo tax yu bari danañ koy faral di nettali ci tafsir yeeg ñoom seen te fekk wérut damay wax ne amuñu jotul sax lépp lu wérut ñu di ko nettali parce que amuñu njariñ waaye di ko junj day am solo ngir nit ki saa bu ko déggee xam ko ñaareel mooy yéwér rek yi ñu jàpp ni wér na insha allah danañ ko def donte al israiliyaat lépp moo wér di am na yu wér ndax waxoon naa israiliyaat yi ñetti xaaj la boo xam ne sunu sunna diine saxal na ko ko xam saxalal comme moom sunu diine da kaa weddi weddi saxalu ko weddiwu ko su boobaa nettil xaddis an bani israil wala xaraj aaya joju xaddis boobu loolu lay tekki suleymaan doog a ñëw suleymaan tamit yàlla joxoon na ko xam-xam suleymaan ak daawud defe naa yéen a ngi fàttaliku ca suratu anbiya bañ koy tafsir kene ba nga xamante ni waa ji daa ñëw jiital morom ma ni ko man kii ay xaram ñëw dugg sama tool lekk sama tool ba mu jeex tàkk ci waxtu guddi kon nag àtte ñëw ba mu leen di àtte daawut mooy bàyyi ji daal ni doom ji de daal ni ñi muy àtte yow mi nga xam ne yaa moomoon bëy yi te say bëy ak say xar moo lekk toolu jàmbur jëlal bëy yi xar yi nga jox ko waaj yaa perte demal parce que loroon sàggan ba say bëy di lekk toolu jàmbur yaa perte àtte ba baax na dëgg la waa ji génn moom kontaan lool ci tali bëyam dem waa ji génn mer lool ñàkk na toolam ñàkk nay bëyam Souleymane dafay ñoom ci bunt bi ni leen waaw lu xew ñu nettali ko àtte bi mu ñëw ni bàyyam li nga àtte de huwal adlu waaye gis naa loo xam ni huwal fadlu li nga àtte loolu mooy maandu ti waaye gis naa loo xam ni ngënee la nga ca teeg maa jox ndigal ma ma àtte waat bopp mu ne ko bismillah defal mu ne ko xam nga lan ngay def da ngay jël ba yi jox ko waay ni ko fii ba déwén lu fi jur jëlal loo tax naanal waaye bay yi moomoo nga ni waa ji yow bàyyi bay yi demal ca toolu jàmbur ba say bay yàq nga bay ko ba mu rafet boo ñëwee ma delloowaat la say bay nga delloo kee tool ah wa kullan aataynaahum hukman wa ilma ñaari at yëpp baax na de waaye sunu borom mu ni ku ne ci ñoom ñaar jox nañ ko mën a àtte waaye dénk nañ ko tamit xam-xam Suleymaan doom la woon ci Daawud sunu borom ni ñoom ñaar ñëpp jox nañ leen xam-xam xam-xam nag ci li gën a neex ci dooyi yàlla yi maye la bokk xam-xam ci li gën a neex ci dooyi yàlla yi maye ca la bokk moo tax alxuraan ba alxuraan rek dolli ma xam nga may ma moom ñaan la waaye dolli ma moom wax dëgg yàlla day fekk ni loolu daa baax bas lañ ci soxla dafa bari ci xam-xam rek lañ ko def waxul rabbi zidni ilman du alal du askan du fan wu gudd waaye xam-xam gis nga xam-xam ci la yàlla yi terale nit xeetu teraanga joo xam ni keneen mën koo am ci leneen ci kaw suuf rawatina nag xam-xamu alquran sunu borom di wax qaala ñoom ñaar ñu ne alhamdulilahi ñu ngi sant yàlla alladi mi nga xam ni faddalana moo ñu gënale ala kathirin ci lu bari min ibadihi almuminina ci jaamam yi gëm yàlla loolu mooy ak cant sunu borom bu la defalee xéewal da nga koy sant ah ñu ngi sant sunu borom mi nga xam ni moo ñu gënale ci ay mbindeef yu bari kon ndekete xam-xam deesu ko ndamoo waaye dañ koy sante yàlla gis nga xam-xam saa boo ko bàkkoo rek waru dikkal na la te waru saa bu la dikkalee rek dugg nga ci gurubu ña nga xam ñooy ña sànku ña iblis nag alayhi min allahi miliarati laana fi kulli lahza faatu bon bu béjjaaw bu bu bu bu bu ñaaw boobu nga xam ni màggat mu kumur la bon yàqu bëgg rek ku mu àndal dugg safara mbokk ceytan bi saatam bu dikkee ci borom xam-xam na ko ah yow day moom yow yow yow yow day sa waay yow yow day moom bu la neexee loo neex laaj ndax yow moom yow la ñëpp di déglu yow loo wax noonu la yow moom yow nag di la jay di la ngay sinkiliku mu lay jay ngay sinkiliku ba ëpp lañ la doon doyee bu ko defee nga dem nag ba rëy commencé laa dugg comme may borom xam-xam bi léegi kenn waruma laa di biir booba nag jekku na la comme maay borom xam-xam bi kenn waruma wax dëgg man maa war a waxaate dëgg waaye kenn du ma wax dëgg comme maay borom xam-xam bi nit ñi xamuñ dara maa xam dara léeg-léeg sax nag mën la yàgg ñëpp nag fam gis nga iblis technique yi saay-saay yëpp la moo xam waaye nit ñi bu ko yàlla defalee xéewal day wax ne alhamdulillahi alladi faddalana ala kathirin min ibadihi almuminin ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ñu gënale waaye lu bari ci ay bindeef waxul lépp de ndax wa fawqa kulli zi ilmin alim yaakaar naa yéen a ngi fàttaliku taaha suratu taaha ba Moussa waaraate waaraate ga tàng lool umbu lool buñ ne jooy benn waay ne ko Moussa wax kaw suuf est ce que am na ku lépp xam-xam Moussa ni déedéet suñu borom ni ko ha ah Moussa nag tey nag wax dëgg yàlla daa wax lu ëpp waaye tey nag wax nga lu ëpp Moussa maa xam nga ne am na jaam bu ma làq fii mi ngi fii soriwut tuuti bari na xam-xam de maa ëppale wala sax allahu akbar xoolal sa waa wax bi nit ki saa bu déggee ku ko ëpp xam-xam gis nga fi mu ne bul xool ay maa ko mag moo mag maa ko raw moo ma raw maa ko njëkk a judd moo ma njëkk a judd yooyu amul solo gis nga Abdoulaye Abbas Abbas boo ne ko yàgg yonente bi ku mag danaan man maa ko njëkk a judd waaye moo ma mag xam ngeen ne Abbas moo ma ko yéen sax waaye boo ne ko yàgg yonente bi ku mag dana maa ko njëkk a judd waaye moo mag lu tax xam-xam bi la ko ormaale gis nga Moussa ba mu déggee ni am na ku ko xam-xam xam nga lu wax laa abra noppalu jeex ñun la nit war a jullit war a xëri ci xam-xam laa abra xatta abluga majma al bahrayni aw amdiya xuquba man daal fas yéene tuma noppalu lu dul damaa yegg fa ñaari géej yee daje wala dox ba dee ndax jaral na ma gisoon ngeen xissa boobu ci suratu këf boobu ma ni ko wax ca këf kon mu sant borom ñoom ñaar ñu sant seen borom te képp ku yàlla war sëgal dafa war di sant borom subhanahu wa taala ci xéewal yi ñu ko def ah suñu borom mu ni wa warisa doon na suleymaanu suleymaan daawuda daawud daawud faatu na comme ni ma la ko waxee sànq fonkalam yi ñëw ñu jël ko muy malakul mawti alladi yatawaffa kulla nafs ah waaye warita doon na Souleymane Souleymane Daoud Daoud doon bii nag nekkul doon comme ñu ni bàyyi diw dee na doom ji doon na ko déedéet ndax al anbiyaau laa yurasu yonent yàlla yi kenn du leen doon looloo taxoon ba yonent bi faatoo Fatima ñëw ni Abubakar damay bëgg nga miraas saa bàyyi mu ne ko ah kenn du ko miraas ndax yonent bi newoon na ci dundam nahnu maachara al anbiyaa ila nuras ñun mbooloom yonent yi kenn du ñu doon waa suñ doonul lu ñu def àllam mu ne maa taraknaahu sadaqa liñ fi bàyyi sarax lay doon salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhim ajmain kon doon na ko waaye alxaafis ibnu kathir mu ne doon nga fi l ilmi wal mulk beneen bi ci des mooy li lay war ni sax doon ko woon ci alal Souleymane amul woon daaw amul woon Souleymane kese amul woon benn doom de Souleymane kenn la woon ci doom yi ndax Daawuda amoon na téeméeri jabar yonent yàlla Daawuda amoon na sax faam dama waxoon ci anas laay wax fii rek xam naa bu ko waaye ni sa fekkee woon moom danañ dañ koy kereel mbaa ñu tëjlu ko ndax ñiy bañ jabar yu bari Maodo ba ñu defoon ci at tawfiqatul ilahiyya fi taaddi zawjaat bokk na ci la ma ci doon leeral même diine yi wax ni dañuy interdit ci seen diine takk ñaari soxna loolu ay kàcc la amul benn diine min al adiyaati samawiya du benn boo xam ne dafay tere takk lu ëpp benn amul amul de du diiney chrétien du diiney juif du diiney jeneen diine yépp laa wax nag yépp kullu adiyaati samawiya amu ci benn diine boo xam dafay tere takk lu ëpp benn soxna kon li li ñenn ñiy def mooy làq doom dóor doom ndax ñi nga xamante ni ñoom ca seeni yonent Suleymaan ca la bokkoon jamono bañ naan yonent bi fukki jabaram yeeg ñaar dañoo fàtte borom junni jabari loolu mooy làq doom dóor doom su ko defee jullit bu yeewu yow dañuy ñëw pour wax ci sa bés yow bala ngaa nangu ñu wax ci sa bés nañu wax te yee ko jiitu ba pare doog a wax ci sa bés yow kon kay yonent bi daa tuuti le kon sallallahu alayhi wa sallam waaye Souleymane amoon na téeméeri jabar daawut boobu kon Souleymane kenn la ca doom yi amoon na njaboot bu bari tamit ah wari sa doom na Souleymane Souleymane daawuda daawud ci nguur gi ci xam-xam bi ci mën a atte waaye nag yàlla lam joxoon Souleymane dafa mel ne dafa jëlaat lam joxoon daawud dafa jëlaat yeneen dolli te Souleymane ndax bokk na ci suratu saad lam koy wax hada atauna lii mooy li ma la may famnun bu la neexee mayal aw amsik bu la neexee teel bi xëyri xisaab du ma la àttee dara allahu akbar nguur gu yaatu la amoon moom suleyman alayhi salaam nguur gu yaatu fasaxarna lahu riixa tajri bi amrihi ruxaan xaytu asaab والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد سليمان boo dee jinne Souleymane a ngi ñëw rek jinne commencé lox ndax xam na kuy papa Souleymane am na jinne yoo xam ne ñoo koy dugal ci biir géej gi di ko génne lub lub yeeg yaaxuut yeeg per ya fa nekk yu rafet ya am na jinne yoo xam ne ñoo koy tabaxal sato yeeg dëkkuwaay yi am na jinne yoo xam ne ñoom la yónni mission yi picc yeeg njanaaw yi waaw allahu akbar moo tax keroog yonent yàlla saa sallam di julli ba mu yàgg saxaaba yi gis ko mu ni niib ab waay xëcc gars yi naa waa kii lu muy def nii mel ni ku nekkul ci biir julli gi yonent bi nag ko bërbëreeg moom gësëm gësëm gësëm gësëm ba mu yàgg mu daal di koy bàyyi bi mu sëlmalee mu ni saxaaba yi iblis de moo ñëwoon fii yor benn jumu safara naan daf ma koy jéem a làkk bi ma nekkoon niib ba jekku baat bi dama kaa xoj ba mu yuut sama baaraam bu ngande bi iblis muy daal yuut sama baaraam ba ma yëg ni sedd na mu ne bu du woon ak ñaanu Souleymane bi luy ñaanu Souleymane bi mooy yàlla habli mulkan laa yambagi li ahadin min baadi may ma nguur goo xam doo ko mayee ci keneen xam nga loolu yàlla nangul na ko mu ne bu du woon ak ñaan googu iblis danaa ko yeew ci poto jàkka ji gonay Madina yi ku yeew ma ne la seen maam iblis a ngi nii maam iblis mi ngi nii waaye nag loolu daa bokk ci mayi Souleymane ya suñu borom mu ni wa qaala Souleymane mu ni yaa ayuha nnaas ay yéen nit ñi xollim naa man tuqa tayr yàlla xamal na ma lan la picc yi di wax ah xollim naa man tuqa tayr mooy yàlla xamal na ma lan la picc yi di wax wa uutina min kulli shay mboolem xeeti jumtukaay yoo xam ni borom nguur da koy aajowoo yàlla jox na ma ca la ma ca soxla inna hada lii day la huwa alfadlu almubin mooy ngëneel yu fës yu leer yi nga xam ne yàlla defal na ma ko foofu danañ ci déggee ay mbir bi ci njëkk mooy lim li la yàlla defal ci ay xéewal dina ndagal ci buntab su fekkee nit ki tudd ko ngir rëy rëylu waaye da koy tudd ngir sante borom ndax yonent bi nee na ana ah xayru waladi aadama wala faqr li maam aadama jur maa ca gën tiital taxul ma di ko wax bu nit ña jàqee àllaaxira ba ñu xëm man may bu ma ma ma ma ma nu mu koy waxatee ci maanaam bu fekkente ni maanaam suuf si ñu ngi njekk man la suuf di njëkk gëq ma génn tiital taxul ma di ko wax li warul xamdi yowm alqiyaama man naa koy yore tiital taxul ma di ko wax moo tax borom xam ñu ne tiadaadum ni am su fekkee kàggare te jubluwu ci tiital loolu dagal na wax maa bi ni'mati rabbika fa xaddis kooku benn la beneen bi ci def mooy Souleymane yàlla daf koo déggloo waxi picc yi waxi picc picc nag moom dañ ko yem da ngay gis koy wax waaye moom kii de waxi picc rek lay wax fii moo ne wallaay waxi picc soo ko de picc ak ay wax wax lu am solo gis nga bu demee ci àll ceeb ciibam joobu ngay dégg yow yaa xamul lu muy wax waaye ñoom xam nañ la ñuy wax ñoom àll bi boo fi génnee am na xeeti ceeb ciib boo ko déggee nga xam ne ko nga di ko nag kaw kaw taxawal di xaar xam nga ceeb ciib yooyu lan la mooy yéen bi ciy kaay leen sama tàkk daa daal li may wax lu ko gis la de luñ jàng ci téere am na façon sax boo xam ni bu ko picc mi sabee rek taxawal ngay xool da ngay jékki-jékki rek seen ay picc ñëw rek ni këfet kaaf bi maanaam benn picc bu fekkee ab tàkkam dafa daanu ci suuf moom du ko mën a yëkkati moom kese am na xeetu sax boo xam ni saxu daw si lee wuñ walloo xam ngeen di wala naa wuñ walloo xam loolu ku ko wax rek nit ñi daw ñëw da ngay seen nga gis benn picc nga ko fii benn picc nga ko fee rek ñu ni fër rek moom yéegalal ko jox ko kon ñoom picc yi ñoom la ñuy waxante xam nañ waaye nag nit kuy xam li picc yi wax moom moom mooy kat kooku mooy Suleymaan moom nag yàlla koo mayoon day dégg jin làkku jinne yi dégg làkku picc yi làkku rab yépp ndax moom nguur la bu yaatu woon goo xam ne la ko yàlla mayoon kéemtaan la woon mu ne allimna mantiqa tayr mooy moom xam na li picc yi wax wa utina min kulli shay maanaam yàlla jox na ko ci mboolem xeeti jumtukaay yoo xam ni ku yore nguur da koy aajowoo mu ne inna hada lii nag la huwa alfadlu almubin lii moo demee ne kon jiital taxut mooy ngëneel yu fës yu leer yi waaye ngëneel yi nga xam ne yàlla defal na ko kon nit ki bu fekkee yàlla daf ko defal xéewal dafay xam ne moom kenn la ci jaami suñu borom yi waaye mu santee ko ko ndax la in shakartum la azidannakum mu bañ a wedd ndax la in kafartum inna adabi la shadid kon dégg gi Suleymaan doon dégg wax bi ci mi ngi mel ni dégg bi ngeen dégg saa kàddu gi nekkuloon ay ciib ciib mu koy liyaa ak a wax déedéet waaye da leen di wax ni picc mii kat nangam ji la wax bunt bi nag boo demee ci téere yi on lim naa man fiq tayir fii tamit tekkiwul ab tayir tamit tekkiwul mooy picc mi ngeen xam mooy la pax la paxi kese borom xam dañuy wax ne njanaaw yu bari dañ ciy duggaale bu ñee ab tayir rek mooy njanaaw yi ak yi mel ni ñoom rabi àll yi am na ñuy wax sax ci bunt bi ay wax yu bari yoo xamante ni bokku ca xaw ma ñëw yàlla xamal nag waxi rab yi rek kon dañ naan moom rab bu ñëw mu xam ba bu ko defee ku bëgg a nettali rek farax dalu sax wàllu foofu li la nga dem ci téere tafsir yi nga ñuy wax naa xawma wenn nag daa ñëwoon ba ci moom rek wan ko gën naa wëccax geen bi wëccax wëccax wëccax daan dem yoon léegi ñu wax ay wax yu réeru sax waay bi ñu laajee Souleymane waaw kii lu ma mu ne nag bi daa ñëwoon di ma wax ni moom kat bi mu nekkee gone dañ koo jàpp di ko bayloo di ko bayloo mi ngi nii màggat na ah ñu naan dañ ko bëgg a jël rendi ko mu ni moo laal loolu wéru riwaay moom ci mawdu ji la bokk wéru donte nag xol li ma mën taxaw fay ànd ak loolu lépp nag yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom yàlla mayoon na ko lii lii bokk na ci lim ko mayoon lii nag bul caa jàpp ni kon day fekk ni yonente yi dañoo gënoon yonente wala dañ topp leen ay may déedéet kenn ku nekk dañuy wax sax jagoo rek yonente bi moom fuuf jagoo yépp jël sallallahu alayhi wa sallam wér na ci sixaa yi ak sunan yi benn bis yonent yàlla bi dani saxaaba yi benn waay daa yor aw nagam di bay ba mu yàgg ah ah di bay di bay ba mu yàgg nag wi daal di koy gerte ni ko ragalal yàlla nga nga xam ne coono bii nga may teg yàlla sant la ko bañ may bind pour may bay taxul woon ñu di ma bind saxaaba yi daal di yéemu jommi mu ni bu ngeen ci naree jaaxee laaj leen Aboubacar xam nga li may wax laaj leen Omar xam nga li may wax Aboubacar da ngaa fekkee Omar kenn dékkeewu ko ca waaye daa bëgg a wan ni kuy dëkkal Aboubacar ak Omar ñoo la gën a mën a dëkkal wér na ci sunna sadal samaayil muhammadiya boo delloo ci benn bis ak waaye da doon sàmm ba mu yàgg benn téel daal di ñëw ni kerbet ab gàtt ngank lekk ndax moom waa ji di ko dàq di ko sànni ci léegi daal di geesu ni ko yow da nga maa bëgg a xañ wërsëg wu ma yàlla joxa waa ji tax gémmiñam ci lu guy wax taaw mu ne ko lu gën a wax garaaw ci lu guy wax a ngi fi te waxoo ci mu ne ko lan la mu ne ko yaa nga bàyyi yonent bu nekk fële di wax ay wax yoo xam ne kenn xamul fu mu bàyyi ko ci gëmoo ko waa jooja moom bisab keroog la tuub kon yii daana am waaye kii nag da cee gën a fës gën cee ràññee ko moom Souleymane alayhi salaam sunu borom yi wax aussi dañu Souleymane sunu borom yi dajaleel nañ Souleymane nag fangal ko junuudu ay soldaara minal jinn ci jinne yi soldaari jinne wal ins ak nit ñi wa tayri ak picc yi fa hum yuusaxuuna ña ngay ba ma xantee ka jekka-jekkalante maanaam ku nekk col sa na eh usil sax bi jubut mooy fa hum yuusaxuun mooy kenn ku ci nekk ma ngay dànkaaf morom pour mu ëppal lu mu jiitu sàppe yi jub xott nit ñi ran ba jeex tàkk jinne yaa ngi ca gannaaw xam naa ne Souleymane de amoon na ay jinne taaw nga xam ni ñun moom boo déggee turu jinne rek mooy li ma waxoon démb boo déggee jaan rek commencé rappi rappi waaye Souleymane am ay jinne boo jàngee taarix wala maa taarix dañuy nettali Moussa ibn Tarik nga xam ni li may wax yàgg na ci waxuma sax jamono Souleymane ci jàpp ginnaaw yonente bi sax mooy jinne daa mën a gudd fan loolu tamit ngeen bàyyi ko xel Moussa ibn Tarik defe naa moom la ñuy tuddee jabalu Tarik ah ñu nax ñu dem jàpp baat bi tuddee ko Gibraltar Gibraltar xaw ma Gibraltar du woon noonu déedéet jabalu Tarik la ndax waa ci ñuy wax Moussa ibn Tarik moo ca campé woon keroog ba muy xeex ñu nax ñu wax Gibraltar ñu defee ne yëfi tubaab la du yëfi tubaab de yëfi lislaam la woon ci cosaan ba dañoo nangu suñuy bagage ñu ni kam kamaara di xool rek bi muy xeex ci xeex yooyu am na ay xeeti ndaa yu mu gis ah bi ñu ko nee tay toj rek dafa dégg ku yuuxu waaye Souleymane boo négee duma ko defati bi ñu ko toppee laaj borom xam-xam ñu ni amal na kon dañoo bokk ci jinne yi nga xam ne Souleymane da leen doon kaste ci ndaa yooyu di leen mbugal ndax kat wa man yusiq minhum an amrina nusiqu min azabin alim ku jaat mooy ndigal lépp tey ñu caw ko ba yaramam man dogal ya amal law ma yasa min maharib wa tabatin wa jifanin kal jawab i'malu ala dawuda shukra kon sunu borom ni fahum yudaun ña nga dajalo di jekk-jekkalanteeka yembalanteeg maanaam di daan kaaponte ah léegi soldat bi taxaw nag picc yi am na ci ñoo xam ne ñoom dañuy bàyyi ba Souleymane taxaw ñu ñëw kii tàllal laafam kii tàllal laafam kii tàllal laafam mu xaw a toll ni quartier Médina Mbam bi la woon mu nekk base picc yi tiim leen suñu borom mu ni xatta ida ataw ñu daal di ànd nag di dem xam ngeen buur yi noonu la ñuy faral di def lii nag mooy buur moo tax yent yàlla saa sallam ba Jibril dikkee ni ko sa borom yàlla nee na bu la neexee mu def la buur akub yonent comme Souleymane bu la neexee mu def la yonent kese bu la neex tànnal yonent bi xool jibril jibril ni ko déedéet tànnal nekk jaam akub yonent moo tax ami conseil aka baax ami conseil aka baax boo ko dul def rek nga def loolu bu ko defee mu daal tànn maqaamul ubudiya wa maqaamul ubudiya afdalu min maqaamil mulk moo tax maqaamul ubudiya boobu ci la ko yàlla taggee ci alquran subhana alladi asra bi abdihi parce que moo gën a kawe wa annahu lamma qaama abdullahi gis nga yooyu yëpp ay maqaamul ubudiya muy ak njaame la koy taggee muy nekkub jaam parce que foofu la detteelu ba wàcce sa bopp feeñal pas-pas bu wér yam suñu borom ni xatta ida ataw ba ñu yegg si ala waadi namli ci xur wi nga xam ni bala xorandam ya nekk wala janj ba mooy li ma leen junj démb qaalat daal dinay wax namlatun benn xorandam mu ni yaa ayuha namlu ee yéen sama mbokki xorandam yi udxulu masakinakum gaaw leen dugg seen biir yi néeg laa yaxtumannakum balaa mu leen di joggaate Souleymane Souleymane wa hum laa yas wa junuduhu ak i soldaaram wa hum laa yas'urun te ñoom duñu yëg lu xew Souleymane dafa ànd ak mbaboor bi ñuy dem ba dànd ay meetar jàngi bi benn xoratam daal di ne yéen sama mbokki xoratam yi dugg leen seen biir yi nekk ngeen tëju ñun ab société lañ bu féete suuf dañoo am beneen société buy ñëw bu féete kaw ñoom bu nuy dox dañuy këmëx këmëx yi ndax jàpp nañ ne ñoom rek ka fi nekk ñoom xamuñ ñu ne ci suuf joggaate wuñ ñu ndax ñoo koy tay waaye dañ ñuy joggaate ndax waxum laa yasoxloon duñ ko yëg ak a wax dëgg ñaata meleen tànn oto yi rey par bis ak i muus ak i sew sewaan yoo xamante ni ndeysaan kenn du leen jaane kenn du leen tàggale seen bopp loolu lépp ci wala xadi karam na bani aadama lay jeg te benn doomu aadama boo faat ba kanam tey say mbokk ak mbokki jàmbur am ci wàll dañ leen di jokkaat moom laay soxla du ñëw sax lu xew gis nga waxoon naa leen démb ni leen société xorondam ak yamb moom la ñuy tëkkaleeg société nit bokk na ci liñ mën a jàng ci ñoom esprit dimbalante dafa nekk ci ñoom xoolal nit ñi liñ mën a jàng esprit dimbalante ndax kenn tey bu gisoon esprit dimbalante ak bokk liñ am boo gisoon fi ay pepp dund da ngay dem woo tey mbokk ñu ñëw yenu ko beneen bi jëlee ñoom ay beru ak sama sama sama déedéet ñoom suñu suñu suñu bokk na ci mooy ñoom seenu doxalin dañuy laayante biir ci seen biir ndax udxulu masakinakum laa yaxtimannakum suleyman wa junubu laahi sulaym loolu mooy laaya biir sa mbokk boo gisee danger di ñëw foofu nag boo demee ci tabaasir da ngay dégg ñu naan xorandam ba ci ba nii siisaan la bokkoon ak xorandam baa ko udd bar siisaa xorandam baa daa tànk wala adam moo tax xorandam yooyu yëpp amul benn njariñ parce que li tax amul benn njariñ mooy léeg-léeg bu ñu ko xamee wala après du ñu njariñ dara laa yusmin wala yusni min juu tey daanaka ci israiliyaat yi rek la bokk am na benn téere bu am solo boo xam ni defe naa ki ko taalif Muhammad Isa wala Ahmad Isa la tudd téere bu am solo lool sax loo xam ni képp kuy tafsir alquran jaagu na mu bokk ci yam yi am ndax xam ngeen jumtukaay yi bari na waaye bii moom ya ngay ñàkk waru caa bokk mi ngi ko tuddee al isra mawsuwaatu al israiliyat wal mawduwaat fi fi kutubi tafsir boo ca delloo dafa tàmbali baqara ba naas saa wu mu yegg si rek da lay génneel ya cay israiliyat ak mawduwaat ba mu jeex jazakallahu kulla xayr wa kadalika yeneen i borom xam-xam imam ibn al jawzi am na téere mu tuddee al mawduwaat wa kadalika yeneen borom xam-xam daal nañ ay téere yoo xam ci buntu bii la di seggaat yi nga xam ne moo ne ci biir kutubu tafasir ak yeneen yi xoranam daal génn na wax loolu xoranam nag ku sunu borom ni yàlla def defal ay may la junjoon naa ko démb dëgg la am na xadis bu siiw donte alxaafis ibnu xajar am na ko ci buluugul maram waaye dafa bàyyi mooy yonent yàlla Suleymaan wala benn yonent dafa génnoon di baaw naan di ñaan ndox bi mu génnee mu fekk benn xorandom daal di jaaxaan féete na ñeen tànk yi kaw asamaan gënal yàlla ñun day say jaam la ñu ndaw taw baa ngi nii ñëwul moo tax nit ñi amuñ dugub ñu nit amuñ lañ nekk kon rusee ñu taw bi nga tawal xadis boobu dafa bàyyi wérut donte mi ngi ci buluuxul maanaam waaye wérut ànd ak loolu wér na ci sunna nag benn yonent te loolu mi ngi saxe muslim ab yonent boo xam ni benn xorondom moo ko maat rek mu mer dem faagaagale janj ba yëpp yëpp yëpp sunu borom daal ne ko waaw yow benn xorondom fett la nga dem faagaagal ba tooñaale xorondom yoo xam ne deful dara te woon ngaa rey benn xorondom bi rek nga bàyyi ñi ca des boo loolu mi ngi saxal muslim te xorondom kat wax dëgg yàlla bari wulub tooñ de danay màtte nag waaye bari wulub tooñ de Suleymaan bi mu yegsee ci foofu mu dégg xorondom bi di wax loolu xam nga waxu naa allim na man ko tayr te ab tayir nee na la xorandom yeeg yamb yeeg yëpp dañ ciy duggaale Souleymane daal ne teg dégg xorandom bi di wax ak ay mbokki xorandom kon moo lay wax ne ñoom dañuy wax de gis nga loo gis day sàbbal yàlla wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi yonent yàlla bi day tere ñu rey mboxtu ndax nee na mboq mboqam jooju ngeen di dégg te naan moo ko soob ma ngay sàbbal yàlla xam nga am na ñoo xam ne ñu jël mboq rey ko fees ko di ko di ko di ko di ko di ko fajoo yonent yàlla bi nee na inna naqnaqataha tasbihun dafa tere ko rey mbott ndax mboox mbooxam jooju nga naan moo ko soof moo ko nangam mbokk yi ndax kuy sàbbaar yàlla kenn dina ko yaa ko soof moo tax ñàkk xam diina lu bon la ñàkk xam diina lu bon la mbott mi moo ko soof waaye xaarama rey ko xaarama nangam ko xaarama nangam fekk xam nga lan lay nuru da nga ni jaamu yàlla bii di sàbbaar yàlla moo ko soof loolu nga wax de kese kii da kaa rafetal kee ñaawal ko rek kii dane ana sa yaay kee ne ana sa ndey jeex Souleymane daal dégg loolu bu doon ñu ne nag nga xam ne yàlla danaa may ñun ñun da ngay gis benn waay boo xam ne dafa dégg arabe anglais français espagnol allemagne rek commencé tiitaru ci kaw nit ñi mel ni mooy ab yonent ndax làkk yi dégg parce que da ngaa am lu jafe yooyu jërul tiitaru gis nga yàlla subhanahu wa taala yi muy maye jërul tiitaroo boo feebaree mu commencé wàññeeku boo dee ñàkk nga ko boo gëmentoo xamatoo ci dara boo nelawee bokkutoo jëru tiitaroo déedéet gis nga li ëpp solo mooy nit ki bu ko yàlla mayee muy def li ñu tuddee tawaatoo maa tawaata abdu lillahi illa rafaahu llah da ngay wàcc sa bopp loolu xorandam bi daal di wax loolu mu ne fatabat sama mu daal di muuñ moom Suleymaan daaxikan ngir muuñ ak reetaan min qawliha ca wax jooju xorandam bi wax ndax dégg na ko fii nag am na nuqta bu am solo ma ta bàyyi xel waxul fa baxika waaye dañuy fa tabassama tabassum dana ñëw nekk banqaas ci dexk moo tax mu ne fa tabassama baxika gis nga xaqataay du teggin du yar moo tax ab yonent du xaaqtaay ab yonent lu ko yéem ak lu ko jaaxal ak lu jar ree lu ne tabassum lay jëfandikoo moo tax yonent yàlla saa sallam daawoo ko gis mu reetaan ba kàkku déedéet loolu amul ci samaa'il yi sallallahu alayhi wa sallam moo tax al allaamatu saa'i borom tafsir naata saadi boo ca delloo bi tafsir aaya ji dani lii dalay wan ni maanaam reetaan ba kat ci xotti orma la bokk waaye nit ku mënta ñàkk reetaan mu reeree gu yam comme ni yonent doon def sallallahu alayhi wa sallam waaye mu muuñ ndax muuñ kat tamit nag bañ a reetaan bay kat bu taxee nga di doo ree doo muuñ mu def ci ne la nga def bon na ndax baaxul ma ku dëkkee mer bon nga waaye ku dul merit bon nga ku dëkkee ree bon nga waaye ku dul ree bon nga gis nga yàlla dafa bëgg nga ne ci wasatu yi parce que nit kat wata picc kanam rek du ree du kap du nangam déedéet ab jurit day kap waaye kap nag daa am fu muy yem kap goo xam ne dëgg lay doon doo kap kap ku ëpp te doo wax nit ki lu ko metti lu dul kapu ko reetaan la comme ni ma leen koy nit la yonente bi saa sallam ñëw na ba ci ginnaaw anas daal yëpp kii moo ko rëy nopp waay saxaaba yi reetaan te loolu mi ngi sonoon abi daawud ñëw na fekk benn waay mu ne waay kan moo soxla jaam bu ñuul waay ak yu demee noonu nga xam ne kap la waaye nit ki du ca mer te kenn du la ca dépassé waaye di kapee loo xam ne day day day day day ëpp kat loolu sunna du ko digle kon fa tabat sax mu daal di muuñ daaxikan muuñ ak kuy ree min xawliyaa gis nga sunna dafa jàngale ba nit ki mën naa mer sax di muuñ te du ko feeñal gis nga xisab kaab keroog ba nga xamante ni nee na ñëw naa mu ni fa tabassama alayya nabiyu tabassuma almughdib yéen ci muuñal na ma muuñ koo xam ne xam na ni gii muuñ di muuñu ko kontaan waaye muuñu ko mer la ndeke man ngaa mer ba noppi sax di muuñ loolu day wane maanaam ab jul toujours dafa war a nekk féree ko xar kanam saraxe boo amul loo saraxe yéen ci yàlla nga tëjee sa mbokkum jul ubbi sa kanam sax dañ lay bindal tiyaaba yi ko saraxe waaye léegi da ngay dajeeg sa mbokkum jul yaakaar ni kii moom dañ koo fëgg jant bi déedéet l'islam moom bëggul loolu sunna bëggul loolu mu teg ci ne mu ni ah fa tabassama mu daal di muuñ daaxikan di ree min qawliha ca wax ja nga xam ni gaa waa ji wax na ko lan lay ree day ree ngir day sant yàlla day ree ndekete kat du ñun rek ñoo am xel waaye rab yi am nañ xel da ngay dégg ko naan est-ce que rab yi am nañ xel fas yi am am nañ xel en kay am nañ xel de xel yee tolloowu fas woo xam ni boo nee ko ali mu daw boo nee ko kor mu taxaw ah ak yeneen ak yeneen ak yeneen bu la séenee nga ñëw yorum ngooñ mu ngexal xar mi bu la séenee même topp la dama ni am nam xel xel ma daa tolloog la mu topp jëmmam jëmmam yow nag bu ma gën a sam xel cam xelam kon moom dootul amati xel mu ne fa tabassama daaxikan min qawliha mu ne wa qaala mu ne rabbi yow sama borom awzi'ni yénkeewal nga ma wala yénkeewal ma an ashkura ma mën a sant ni'mataka allati sa xéewal yi nga xam ni an'amta alayya moom nga ma xéewalal nekk pour nga sant yàlla sax yàlla moo lay dimbale nga mën koo sant mu ne yàlla yàlla nag ma yénkeewal dimbale ma ba ma mën a sant xéewal yi nga xamante ni moom nga ma defal wa ala walidayya sant tamit xéewal yi ma defal ba baaxee ma ñaari wayjur yu mel ni su daawuda ak sama wayjur wu jigéen way juróom bu jigéen ci ñi dàqoon a woor ci kaw suuf la bokk moom daawud moom suleyman way juróom bu jigéen ci ñi dàqoon a woor ci la bokk jaamukatu yàlla bu mag la woon kon baaxe gi la yàlla baaxe ñaari way jur ak cee mat a sant gis nga léeg-léeg da ngay ñaanal say way jur waaye fàttali na sant am na koo xam ni bu sañoon fi mu juddoo du ko juddoo loolu day am de li la yàlla baaxe la way jur yoo xam ni ñoo la tedd jàngal la diine xamal la yar la taxamal la dem jàkka boo màggee tey defal lii da Suleymaan def bu leen fàtte de ak loo wuute wuuteeg ñoom pas-pas nag bu leen fàtte bu leen fàtte de ndax buñ nekkee raxas it nag ñoo nekkoon ndox ma démb beneen bi ci des it mooy ñoo la teste ba nga yegg si bi nga yegg si amal yërmande ci ñoom tey ñaan la suñu borom sant ko ko ñaan muy waala waaliday ak xéewal gi ma xéewale sama ñaari way jur way jur mbokk yi lu foor lu mat a fonk la lu mat a sante yàlla la gis nga way jur wala walaw kaana kafirayni mushrikayni musnibayni du tee ay yéefare ki bokkaalekat yàlla du tee rafetalal jëm ca ñoom suñ la waxee kaay bokkaale yàlla bañal waaye ndax bañal a bari génn kër gi wala nga dagg salaire bi ni nga ko doon dimbalee par weer ndax bañal ba noppi nga daal di koy daggalu saaka ndax bañal ba nga ne mu tëddee baax wëccax loxo déedéet mu ne wa saaxibu ma fi dunia maarufan fi dunia maarufan mooy loo ko doon jox par weer continuer di ko ko jox fa mu doon dëkk na fa dëkk lan doon lekk na ko lekk na nga ko continuer defal la nga ko doon defal waaye sa diine nag moom lu cay wàññeeku bañal buntu boobu fiq bu am solo ci fiq bu birril waaliday waaye xel nii mu ne yàlla nag ma tàppal bi rahmatika ci sa yërmande fi ibadika salihiina ci mbooloo mi nga xam ne mooy mbooloom sa jaam yu baax yi te jullit bu nekk war na ñaan yàlla loolu te mbooloom jaam yu baax yi mooy ña nga xam ñay tàbbi ajjana yàlla na suñu borom boole ci suñu borom wàcc na loola mu ne watafaqada tayr Suleymaan daal di génneeku rek watafaqada tayra mu génneeku picc yi vérifié picc yi